libération li mu ñëw mooy audit deux mille vingt deux mille vingt et un bu ARMP. mais audit bi nag dafa épinglé wala sax dafa gis ay magu yu bari yu nga xam ne am na ci yenn agence yi bokk na ci euh, Mamadou Fofana. Mhm. ñu ne euh, Puma. Euh, am na benn 3,5 milliards hors contrôle bu nga xam ne nii biñ ci tegee loxo dañ ne euh, secret défense la euh, loolu mooy kenn waru ko liñ bat loolu moom gis nañ ko foofee dérégalement ñu ne dafa mel ni mbiri parc Lambaye la maanaam waxtaan bu juboo rek ku nekk jël sa commission daal di dem en tout cas lu mu ci manti doon nee nañu bi ci mujj te boo waxee ñu ne secret défense la cabinet Atepa gañe na fa benn marché gré à gré bu nga xam ne nii ñu ngi ko xayma si 715 milliards waa demee di ko saytu moom bi dafa jël documents yi daal di nëbb en yenn documents yi euh, nanguwul gars yi gis ko contrôleurs yi maanaam auditeurs yi ville bu Dakar Soham Wardini euh, jot na ko jiite xam nga. Euh, mais si diir bu gàtt boobu rek ñu ngi koy tudd ci mbirum maguy bu nga xam ne ñu ngi ko xayma ci lu ëpp deux milliards ah mbirum fraude maire bu Ziguinchor ak bu Pikine tamit nee nañu inspection jot nañu ko saytu foofee joxoon nañu leen baaraam Abdoulaye Timbo ak Abdoulaye Bibi Baldé waaye def ADM ñoom daal lañu gis ne seen ak yorin aw na ci yoon waaw. et gestion yooyu nag luuba li ñuy wax xaalis askan wi la dénk nañu leen nee nañu ay marché gré à gré mm. euh, wala ay <laughs> boo waxee ñu ne euh, secret défense doy na waar. lu kenn mënul comprendre <clears throat> d'abord tàmbalee ko ci moi mu di euh, programme d'urgence de modernisation des axes et territoires. boo demee ci dëkk dëkkaan yi nga xam ne surtout ñoo gën a sori boo gisee ñu naan lii ay piste la yoo xam te ne nii ñu ngi koy def ay tali yoo xam te nii mm-hmm. dimbali askan wi nga xam te ne nii ñu ngi ne dañoo sori te yegg fa nekkoon lu jafe parce que yoon yi nekkul woon lu baax li ci liggéey yooyu ñoom ñi ñoo koy def alors ñu ne directeur bi trois milliards cinq cent millions jàpp nañ ne nekkul loo xamante ne nii lu mu jaaral yoon la te la ca gën a doy waar moo di ne da ca dañ ci estampillé lu ñuy tuddee secret secret nag xaw ma man finalement léegi lan lañ war a jàppee lan mooy secret waaw bu ñu sukkandikoo ci libération ba léegi parce que hmm. nag moo ko bind beneen bi di ñii nga xamante ne nii ñoom ñooy waa DER waa DER a ngi Pape Amadou Sarr nee nañ ay marché yoo xamante ne nii entente directe la yaa man ne gré à boobu tamit ñu ñëw ne dañ ci teg lu ñu tuddee secret défense mhm. mais man xam nga lu ma jaaxal DER ak financement entrepreneurial lan moo ci war a mën a am secret défense <laughs> ak lan la war a laalee ak secret non secret défense dafa xew déet waaw oh, oh, mais dafa xew. dafa xew dafa xew ba pare léegi. dafa nekk loo xam ne aux autorités compétentes. notion la boo xam ne léegi passe partout la nga bëgg a wax. waaw mais loolu moo ci garaw nag. soo bëggee rek ah la quoi. nekk na eh, secret défense prox ndollu pour lan pour luubal. buntu porte bi la. <laughs> loolu du entrée principale. quarante cinq milliards yi ñu doon wax ci armement wu ministère de l' environnement ci diggante ñaari. ministère secret défense. ñu ne secret défense léegi ñu ñëw ne DER lu jëm ci wàllum dimbali ndaw ñi ñu ñu mën a. waxtaan ba dégg ba waaw. secret défense. <laughs> c'est que El moom xel maa ngi ci euh, tama matinal yi <laughs> tama matinal yi Yacine doon wax moom la doon xalaat moom. xam nga fu mu jógee. xam nga bu ñu demee tey. ci kaw la ci kaw. waaw bu ñu demee tey ba ci wàllum noddin. Mhm. dañ ci am ay jafe-jafe. mënuñu wax te duñ fi tudd ay agence wala ay direction yoo xamante ne nii problème bi yëpp. dara waralu ko lu dul problème gestion. Hmm. bëgg jaawale sa poos. poosu askan wi poosu askan wi lañ la dénk nga jàpp na ne ci lii nga war a teddee. di def yëfu maa tey parce que leer na la ne amul dara loo xamante nii mun nga fi taxaw nañu waaw lu jëm ci wàllum kat dimbali ndaw ñi pour ñu am ay xëy wala ñu mën a am ci lu ñu jàpp dañ koo war a tuddee ak secret defence hmm. loolu fan nga koy layee ak nan nga ko mën a tuddee. ab Ablaye Bibi Balde ñu ne moom gaa ñi dañoo ñëw pos mu nëbb mu nëbb document yi. libération ko waaw libération ko wax. nu mu ko dëppee da koo yëkki toog ci wala da koo gas suul. kenn xamul da teg cooñ mais lii nii day tax. ña doon wax ñëpp ne Ablaye Bibi Balde. poste am na ci lu mu laale ci lu ñàbbinu poste. ci tey jii ci guute gu mu nekk moom it am na ci part de responsabilité mais lii journal bi bind tey da ci indi ay firnde te da koy leeral. Hmm. kon doon mu nekk loo xam te ne nii ci nguurum Macky Sall nañuy gis ay détournement yoo xamante ne nii ci lu jëm ci wàllum xaalisu askan wi te du mujjee fenn. Ah, te ba pare problème bi mooy ñaata rapport tey ñoom ñoo fi am yoo xamante ne nii. voilà ñun ñu ngi koy gis. suivi bi la ba pare lu ci gën a garaaw ay organe la yoo xam ne ci ñoom nañu bokk ñoom ci seen bopp ñoo taxaw ne ñii dañoo luubal mujjul fenn président bi ne man. man maa ci teg sama coono loolu nag tuddul lu dul yëpp sénégalais yi. tuddul lu dul ñàkk wet wekk sénégalais yi tuddul lu dul ne man yéen tekki wala dara ñun ñii ñoo war a tekk en tout cas kuñ fi denk mbir daal ñu tudd la ci euh, ñu épinglé la ba dëgg neex yàlla suivi bi war naa am ndax bari na lool nag ay rapport yu génne épingle yi ñu ngi bëgg yàgg. dama lay yàgg épinglé sax te après suivi ba ñu déggee noonu moom mooy kii euh, euh, secret défense. sinon bu loolu lay ah, sow. Ah. ah yëpp ñeneen boo waxee léegi ñu ne secret défense bu ñu ñëwee di auditeur nga ne secret défense. bu tegee nii ñu ne la bii marché bi nu mu demee nga ne secret défense. Eh, eh, eh, libération moo ko wax de. agence de régulation. waaw ARMP ñoo ko waaw ñu ni. waaw am na benn dossier bi ñu doon démb liggéey ci sa DR. lu ñu leen xamal moo di. DR la waaw secret défense. bien lu muy doy secret défense. mais loo xam ne entente directe la waxaale ba jubboo marché bi wax au lieu ñu def appel d'offre mais déedéet waxaale ba jubboo. lu yoonam ci défense ah, secret défense la mooy buntu sorti bu bu kii bi. waaw posons la question à ceux qui s'y connaissent vraiment boobaa peut-être ils vont nous édifier secret défense. secret défense te DR am na fa waaw. en tout cas nee nañ benn marché gré à gré ak Atepa 715 mille euh, euh, millions waxtaan ba jubboo la rek. nee na 715 millions. Papa Alé Niang mi ngi si kaso bi ba tey nañ ko libéré. waaw nañ ko bàyyi suñu bàyyi leen ci xel bàyyi leen ci xel ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw moom oh, passage joyeux anniversaire à Kodou Anne également. yaa joxe anniversaire mon frère. yaa joxe anniversaire tey. très rapidement joyeux anniversaire kan. Kodou Anne. Kodou Anne depuis Paris. ñu koy seetlu de la part de sa sœur Lena Anne. <laughs> Papa Alé Souleymane Cissé koy nuyu bu baax sama mbokkum tëngi Colobane. Euh, Colobane bu Fisk. nuyu naa la bu baax Souleymane ak Yacine mën nañ ko door wax yéen a kaay groupe des médias dafa ñëw ci tribune tey nag dama koy koy tàllal nii ak jëwriñ bi ñu dénk wall yoon Ismaïla Madior faal mooy jàkkaarloo ak député yi tey jii ñu fas génne gëstu saytu budget 2023 lu mu ci manti doon ñëpp jàpp nañ ni kon coowal troisième mandat bi dañ ko fi yëkkati lool daan na fa bari lool moom Ismaïla Madior Fall ndax ñii nga xam ne dañ ne mukk troisième mandat du fi am ak ñii nga xam ne ñoo koy dëggal tey dinañ jàkkaarloo Ismaïla Madior Fall sa pencum ndaw réew ma ngir xool nees mën a def ba waxtaanee ko mu mandi si ay tontu polémique bi amoon ci diggante Mary Teuw Niane ak Ismaïla Madior Fall tey nag lépp dina leer làmb ja kon làmb ji fi amoon daaw verdict ba tey dañu koy xaar sa péncum ndayu réew ma ak Ismaïla Madior Fall dinaan jaay leeral ci troisième euh, mandat bi en tout cas ñëpp loolu la ñuy xaar euh, sa assemblée nationale euh, ba tey ci yéen kay groupe des médias dafa ñëw ci la nga xam ne nii nee nañu manta ñàkk faw mu am mu di confrontation Adji Sarr Ousmane Sonko jëm ci coowal Sweet Beauté gi kon nag jàpp nañu aw juge d'instruction joxe na date confrontation bi mardi lay doon opération de sécurisation dans le nord Sindian jàppale ne comme trois cent quinze hectares loolu war na mat cité bi ne amul du Fofana. trois cent quinze hectares war na tolloo cité bi de. trois cent quinze hectares wala bu ko. mu ëpp na ko muy yéen. ëpp na si cité bi. ah xam nga hectare te loolu lañ ci xam na trois cent quinze hectares boo xam ne lépp yàmbaa lañ ci bay. xanaa li mooy autosuffisance en yàmba. ah ah ah. parce que xam nga benn benn benn hectare rek. da lay génneel. Ah. entre trente cinq ba quarante parcelles yoo xam ne cent cinquante mètres carrés. benn autosuffisance en riz xam nañ ko. autosuffisance alimentaire mais trois cent quinze hectares lépp yamba ñu bay ko ko. fan la fan la fan la. Sindia non Sindia. waaw ah, foofu moom la. l'armée bi nag lépp la la détruire yàq na lépp taal na lépp. lii bu ñu ko taal woon jayax jayax gi na ba lii moo war a euh, volé. est-ce que taal nañ lépp. nee na nañ la détruire nañ ko en tout cas trois cent quinze hectares. loolu yële trois cent quinze hectares du ay faux de taal ko. non dañ yàq nañu la nañ ko. ndaraale jaar nañ ci kawam. donc foofu moom xanaa xanaa picc yi tux ko. picc yi xet gi xam naa moo leen mën na leen jàpp si bi ñu koy détruire mais nee nañ trois cent quinze hectares lañu ñu yàq ci lu nga xam ne nii lépp dañ ko béyoon yàmbaa kaay bi euh, dikk na ci moom moo ko xam xamle ñu jàll ci libération mi ñu doon waxtaanee sànq auditu 2020 2021 bu ARMP nga xam ne ñoom saytu ni ñu joxee yenn marché yi ndax marché yi appel d'offre dafa am euh, ñu xool dossier bi moo gën a ñu jox ko bi am déet am ay waxaale la maanaam waxaale ci ci suuf lu mu ci man ci doon nee nañu nag bi ñu defee seen audit ba noppi def rapport bi ñu génne moo di am na ci ay agence yu nga xam ne nii mbiri nag des na yëngal xel tey na fa njubla ngaa nga ca biir bokk na ci ñooñee waa Puma programme d'urgence de modernisation lan. waa des axes et territoires. waaw. effectivement moom ñooy defar piste rural kii. dëkk kaw gi piste rural yi ngay dégg. ñoom ñoom xëccum yoon nañ leen sant. ay ñu ñuulal yoon yi ci dëkk kaw gi. en tout cas foofu 3,5 milliards la wax ne ni hors contrôle. boo waxee ñu ne secret. défense. que défense bi est-ce que du mi ngi noonu ñu dem ci DRFJ. DR ay marché yu nga xam ne nii. dañ koy waxaale parc Lambaye daje fii rek ku si nekk Yacine am nga ki mbéy am naa benn marché dañ ko waxaale ñaata nga ma ciy jox commission genre googu quoi nee nañ waxtaan ba déggoo la entente directe jëlu sax dañ ko daje fu ñu mën di daje rek nañ ko waxtaanee rek bu juboo ci. après mu doon. ba pare topp ci. nga wax ñu ne la secret défense. <laughs> contrôleur bi ñu ñëw ne leen dossier bi gisuma appel d'offre bi gisuma fi ñu ko fi ñu ko waxtaanee. nga ne secret defence dafa waroon benn nga ne non li secret défense am am kenn kenn kenn warul xool dossier bi kii warul jëm kaw. nañ ka nañ ka maire Binta Faye. ñu ngi yab lu <laughs> bi ñu. <laughs> li wax nañ ko waxtaanee ci suuf bu mu jëm kaw en tout cas nee nañ secret défense la. cabinet bu Atepa moom nag jot na am benn marché gré à gré maanaam waxtaan bu jubboo bu nga xam ne ni cent 715 millions la ñu ko xayma ci moom ba tey ca DER. poste moom Abdoulaye Bibi Balde moo jël raw gàddu gi moom ci boppam bañ demee di ka saytu dafa jël secret défense xaw ma nag daf kaa yëkkati toog ca. xam nga da xaw ma da koo dénkaane xaw ma da koo dugg si suufu bayo bi. mais daal nëbb na ko. secret défense moom moom moom secret boppam la def. <laughs> secret défense. moom da ko nëbb secret boppam. <laughs> ba tey. soo xam war bi nii tata tata soo xam. mairie ville bu dakaar as néew bi ñu ko fa dénk. nee nañu nag lu mu gàtt gàtt ñu ngi koy tudd ci mbirum lu ëpp deux milliards de. Hmm? deux milliards nga xam ne nii. gaa ya fay dem di xool nee nañu daa xel tee na si. Mm. ndam biram bi boobu ba tey comme yëguñu ko woon secret défense. waaw foofu xam naa secret défense la. wala secret xel mu teey en attendant pour le moment. <laughs> secret wóoruñu. secret secret ñàkk wóor quoi fu mu nekk nii parce que ñoo ngi koy gëstu. ci ci même place bi ñu déjjite woon ko fa toogoon yóbbu ko kaso. waaw ndax lan mbirum koppar. ndax mbirum koppar. waaw kees lan. d'avance te te lañ toppee woon te lañ ko toppee woon du woon ay. ay rapport yu leer yu bàyyeekoo ci comme hmm. ARMP mi def audit bu leer nañ naññi hmm. avéré. Hmm. mais Tata Soxane moom dañ mooy jolof. ñu ngi xool daal leeragul quoi am nañ ci ay jiixi jaaxa. waa nee nañ am na ci ay jiixi jaaxa moom au moins bosam ay jiixi jaaxa leeragul quoi ndax secret la. xam ñu secret la xam ñu euh, mbir dossier yenn yi moo matagul xaw ma mais def na daal foofu. ñu ne nag ndekete yoo dóor gi martu gi. waaw mi ngi ba secrétariat général. bu gouvernement bu gouvernement. Eh waa léegi yow dóor gi bu jógee ci agence dugg secrétariat bu gouvernement kay kon wàcc nañu. keneen ku dóor rek da ngay dóorati rek. ay do ay ay ay dóoreet la mais dóor gi dëgg. gu mag gi mm. bu secrétariat bu gouvernement ARMP gii gis na fa ak njublaan maire bu Ziguinchor ak bu Pikine ñoom it gis nañu fa la nga xam ne nii wax fa dëgg tey na xel ci ay marché Abdoulaye Bibi Baldé kon nag ak Timbo joxoñ nañ leen baaraam inspection physique ñoom ñoo fa ñoo ñoo gis mbir yi ñu ne nag rapport ARMP bi ñi ci am nag bon note ñi nga xam ne kenn joxuñu leen baaraam ñaar lañu Ageroute ak ADM ñii ñoom nee nañ leen bravo lu ñu leen dénk yor ngeen ngeen ni ngeen ko war a yoree jaajëf. marché yi jaaral la ngeen parce que ci lu jëm ci wàllu marché la. <coughs> dafa am lu mu laaj de. dafa am lu mu laaj. le thème mooy dafa ñëw euh, ci euh, euh, fac médecine. faculté ba la guerre des des chaires professeur titulaire de chaire fu nekk nii moom la ñuy wër ndax gaañaa ngay buuxante deux cent cinquante professeurs agrégés en de titre boobee maanaam euh, ñu titulariser leen ñu jëm ci passation de marché public Cheikh Issa de de l'ADM moom ci boppam bokk na ci mention très satisfaisante yi nga xam ne ni euh, waa ARMP jox nañ ko ko xamal nañ ko nag yow liñ la dénk moom Cheikh Issa Sall def na ko sa na mu waree moom directeur bu euh, Ageroute wàllum euh, marché yooyee gis nga scandale bu euh, Prodac yéen a bi nee nañ. félicitation waa Mbour. ah Seydou Sassal bu Mbuur. Seydou Sassal bu Mbuur la Ibrahima Ndiaye Mbuur la. Ageroute ak ADN. ADN eh yéen waa bu nekk te yéen yéen ute ngaa. ah ñun ah ñun ñun dañoo naan nitu nitu nitu wa waa nitu ñi. non ñun dañoo bokk nitu fële. ñooñu doon band ba. non waa Mbour ak Ibrahima Ndiaye waa Mbour la. ah léegi nekk nitu Mbour moo gën de. waa Mbour la mooy Ageroute ak euh, ak ADN. Eh, léegi nekk nitu Mbour. mais soxna non nekk nitu Mbour moo gën Mbour. nekk bu da am na. <laughs> lay fàtte te yëf yi. ba génn. vraiment fàtte wuñu fa ngay nekk nga kontaan ba génnee. <laughs> wala nga xam ne waa lay génn. en tout la ci waa mu. lot bi moom vraiment fierté la ci ñun. évadé ñu de non gars yi ne nañ moom. waaw waaw fii nag ku fi ku fi ku fi. non loolu waaw Mbour moom vraiment moom. c'est que y a une série Ibrahima Ndiaye ñuy wax affaire gestion ñu wax affaire kaso ba ak gars yi daw. kontaan ba génn waale dawaane. kontaan naa ne dawaane. c'est que garde yi ñoo fecc ba. fàtte ne ñii di fecc loog ñoom. kontaan te dëgg yi ñoom la ñuy garder quoi. ba noppi nee nañ fausse alerte la du dëgg. non non waa ñu ne noonu noonu nee na amul nee na kenn évadé wu. ah finalement ah kon d'accord. ah ok ah, kon bravo en tout cas. en tout cas. waa léegi ah, information bi. information bi. Ah. parce que il faut ñu jëndi loolu. ma ne ma ne ma ne Ah. dañoo ñëw waanaat. yu mel noonu nga kottante waale. yu mel noonu. jënd <laughs> waale eh, ah eh, cinquante ah, scandale am na nag jëm ci euh, product yi nga moom ARMP ba léegi joxoñ na ko baaraam. confrontation Ousmane ah, Sonko Adji Sarr ci 24 heures. waaw ah, ci moom maam boo bëggee dégg dëgg. tey daal scandale moom du set nee nañ si la bokk ARMP da ko joxoñ baaraam nee na lu njig njaag maa mbay ñaar moo di njaag. rapport bu ARMP ñëw na ci également mba euh, mbas mi ni ko doon gérer ministère de oh. l' nee nañ euh, euh, bus Covid business moo ci uh-huh. ministère de l' éducation nationale ak nag PNA. formation nationale. nationale ñoom dañu leen joxoñ baaraam également ci ni ñu gérer affaire bi. ah, ah fonds six fonds six. Covid Covid business daal ak fonds fu mu nekk nii Walf Quotidien nee nañ contrôle inopiné yi impôt fu nag sonal nañu leen. mbirum fisc sonal nañu leen torop torop torop torop fu nekk ñu ngi fay jaabaa jonge kër yu bari fisc moom tax na ñu ñu tëj leen. carte nationale de presse fii nee nañu nag à partir de tey jii. ko amul carte nationale de presse doo mën a na couvrir. activités yi nga xam ne. kon de ñun loolu les rencontres officielles. <laughs> doo ko mën a couvrir doo mën a exercer métier bi. dañuy wax leen neex rek. alors de la ñu wax ba couvrir jot. <laughs> kabaam lañ tere couvrir dañuy léeb rek ba couvrir jot. <laughs> yàlla baax na yàlla bëri na yàlla bëri na code de la presse bu bees ni mu ngandee singli wu ci lu benn article ab carte donc. ba si yéen a Qatar Sénégal Angleterre dimanche lay doon. dinañ ci dikkaat. Euh, ñu jàll ci Sonko Adji Sarr kon nag jàpp nañu date bi euh, confrontation bi day am. maami Victor Diena euh, Mamadou Lamine Massaly nommé nañ ko PCA bu ONFP moom def nañ ko nag euh, jàpp nañu kon nag président Macky Sall fay na naar bi xoromam. de xibaar far na Mamadou Lamine Massaly moom ci boppam nee na nag dana liggéey liggéey bi. jaajëfal na njiit réew mi président Macky Sall. ci song gi muy song Ousmane Sonko. ci ndam gi nga xam ne président Macky Sall wóolu na ko dénk na ko ONFP. ci ci la. ah ndax la. ci compétence <laughs> eh, la. wax na ko am na master en relation internationale yéen a kaay bee ko wax. mais ci la. nee na am na master en relation internationale. donc am na xam-xam. bi tax ñu dénk ko. heure bi jot na. <laughs> Oja eh, Oja lu mu andi tey ji. kii la. Euh, assemblée nationale borom gën. Euh, mu jàkkaarloo. diplôme Guy Marius Sagna. non non non kii Mamadou Lamine Massaly. Massaly la. ah waaw Massaly la waaw. ah diplôme inspecteur public. ah moom koo jaay foofu la génne tey. délivré à monsieur. très bien. par madame. nekk saagakat. waaw looloo wax. mel ni Ndeye Ndiaye moom tey day gay ñibbi yéeg na ko te du ko waay naa ko mu daan tiitu ma benn yoo da ngay soob rek ndax su ma neexee dem marché Castor taxawaalu ni ma neexee yow génn taxawaalu marché Castor comme nee nga intimidation tiitalu la mun mm-hmm. su ma neexee dem léegi marché Castor taxawaalu yow génnal dem marché Castor taxawaalu waa Alaaji baal ko nag aywa aywa atum lëmm du ma ko wàcc. waaw d'accord li gën a boppu xibaar dañu koy ak euh, manœuvre nationale bi nga xam ni soldats yi ñu ngi koy waajal junni ak juróomi téeméeri soldats euh, yoo xam ni terre mer air ñoom ñëpp dañ cey bokk. Euh, ñu tuddee ko manœuvre Ferlo deux mille vingt trois nañ ci jublu mooy en cas bu mbetteel amee ci terroriste ci Sénégal ñu xam ni ñuy riposté jàkkaarloog ñoom général Souleymane Kandé njiital état major armée de terre bu Sénégal moo jiitee yooyu lay manœuvre. Sénégal euh, ak euh, yi dund ci Guinée équatoriale di dund souffrance ak coono gu méttee métti euh, ci li nga xamante mooy si moom la ñuy jànkuwanteel ex consul monsieur Adama Diallo ci ay tuuma yu teg nañu ko ci seen kaw ndodd dinañ ci si kaw dam moom dinañ si dellu siwaat léegi officiel na nee nañu lu weesu benn fan ci weeru décembre euh, carte de presse boobee dana commencé génn te nee nañu euh, ku ko amul xëy na dootoo journaliste <laughs> ñu bëri caaxaan ñu wax ci alxemes jiitam nga xam ni ci la ñuy màggal journée mondiale lutte contre le sida des na ko jagleel pàcc ci xibaar sport bàyyi ma anta boobu la ñu ciy àndal yéen kay maam ci Thioub Ndoye faram fàcc gi maam Mbaye Ndiaye ak Yacine. Yacine loolu Voici Trafic News. Papalé. allo Yacine. Papalé foo nekk. ak voilà merci beaucoup Yacine pour les deux voies fondataires pour ñi nga xam ne ñoo fa bëgg a nekk tey amul benn embouteillage une fois ngeen accédé au niveau d' intersection bu xaar yàlla foofu la aussi amul benn complication dañ ko aussi am nañ possibilité daal choisir ak bi nga xam ne eh, mu ngi di yóbbu de Jëppal foofu la aussi la voie de Jëppal aussi am ngeen possibilité soit ngeen jël seen gauche di yóbbu eh, pour euh, ngeen jël seen gauche